que cette synergie a existé entre les leaders. Maintenant, nous avons constaté qu'il y a une défiance sur l'électorat, mais c'est dû simplement, à mon avis, je parle de mon avis, du fait que les leaders ont réglé le problème au niveau suprême, ça veut dire au niveau macro, mais au niveau des militants, ils les ont laissés avec leur sensibilité, à savoir que Sherba est mon il a mis des années avec Bamba. Euh, je ne vais, pas, manger pour lui. Bamba nous a fait ceci, Cédou nous a fait ceci. Donc, c'est ces problèmes, ces problèmes, je pense à mon avis, sur les questions de notre défense au niveau de la Bénin. Maintenant, maintenant, nous avons la possibilité euh, de travailler et de mener des réflexions profondes par rapport pas à nous, responsables de Ben et de la mouvance présidentielle, mais par rapport aux militants qui n'arrivent pas encore à digérer la transhumance de Bamba il faut, il le dire aussi de façon très claire. Et d'autre part, les problèmes qui étaient là en amont pendant les élections locales. Moi, vous ko ci yàlla dimbali nañu ba ñu dem ci élection yi ànd ci àndin bu rafet àndin bu rafet mooy bi Macky Sall le président Macky Sall nee Bamba Fall dafa bokk ci ñun namee ko ministre nous l'avons félicité et le Bokk Yaakaar bi nekk fii fii la ñu réuniroon ci salle bi ne suñu coordonnateur demal nga seet ci Bamba Fall ñëpp a ñu toog ne ko ñu ngi lay féliciter d'abord ndax da ngay liggéey ci biir benn bokk yaakaar wala da ngay liggéey à côté de benn bokk yaakaar Bamba Fall euh, damay liggéey ci biir benn bokk yaakaar ñu ànd ci nag commencé di doxal doxal bu rafet bi ñuy doxal doxal bu rafet Bamba Fall moo amoon carte blanche maanaam ba ci meeting bi nga xam ni benn bokk yaakaar bi def na ko man maa nekkoon di def les dispositions pratiques. j'étais le mandataire de la Médina et dans le bi ma defee disposition pratique yi ba pare Bamba Fall moo njëkk a ñëw ci meeting bi bu mu ñëwee ba pare dama ne ko ah yow yaa fi comité électoral bi yaa fiy chef toogal ci fauteuil bi nga ma ni ñuy defee mu ne ma je vous remercie mu toog ci fauteuil bi commencé na kat xaaral ñu woon si amit jàng xaaral ñu woon na mettre ko à l'aise donc ne moo am lu amul woon ci kaw mooy mooy li may wax macro mais ci suuf la ñu réglé wul problème yi nga xam ne ne suñu militants yi ndaw yi yi nga xam ne amuñu maturité politique maanaam amuñu xarañte ñu xarañteefu politique loolu moo indi ñu doon xeexante seen biir Cheikh Bakar mi ngi lii waa kër Bamba Fall defoon nañ ma lii waa kër euh, waa kër Cheikh Ba defoon nañ ma lii waa kër Seydou Gueye boycotté woon nañu et consort ba nga xam ne ne ci sama jàngat ma andi na problème yi nga xam ni mooy li nga xam ni mooy débâcle bi am Médina parce que nag am na ñoo xam ne ne sympathisant la dañu bëgg Cheikh Ba am na ñoo xam ne militant Cheikh am na ñoo xam ne ne dañu bëgg président Macky Sall mais ñoo li nga xam ne mooy transhumance bi nga xam ni moom la Bac la Fall def boole ci yooyu yëpp moo tax ñu ne jàngat bi ñu jàpp mooy jàngat boo xam ne dañ koy jàngat jàngat bu fort bu kawe bu suuxee bu kawe boo xam ne ne ëllëg ñuy gënnaat dinañ mën a génn ci euh, andin ba ci andin boo xam ne ne andin boobu dinañu ma ëllëg jural ëllëg victoire pour le président Macky Sall donc loolu mooy li nga xam ne mooy précision yi ma bëggoon andi te question bi nga xam ne moom nga posé. merci sotti koy jàngat ñun jàngat ko ci li nga xam ne mooy politique jàngat ko ci vie sociétale jàngat ko ci li nga xam ne. ah mooy mooy mooy caay-caay politique dafay am ñetti pàcc-pàcc bi ñu koy jàngal ci sama xalaat mënoo jàngal ki nga xam ni Farba Ngom en 2016 da koy def fekk ñu suñu siège social à la rue 31 ne Cheikh Ahmed Tidiane Ndao photo yaa ngi fii te ah ne Cheikh Ndao Medina yaa fi mën dara yow la ñu yaakaar mi ngi fii bu ñu demee en 2016 nga xam ni dem nañu li nga xam ni mooy référendum gañe ko au niveau de la Médina haut la main il faut que nit ñi di delloo buum te mboy mboy ga Cheikh Ahmed Tidiane Ba li Médina yi dox fii su Macky Sall la il croit profondément au président Macky Sall aujourd'hui bu duggee ci politique technocrate la yéen a ko gën a xam ce cursus scolaire euh, professionnel bi yëpp daf ko def au niveau des impôts 30 ans donc tay bu ñëwee bu relever niveau bi maanaam xanaa tey la ñu mën a wax kay na ya défet ko niveau de la Médina les locales on les a jamais gagné au niveau de la Médina Macky Sall a toujours gagné ba élection bi élection bi nak li fé am mooy jàngat bi ma la wax légui benen bi ma wax moy egg brisé ben élan xam nga moy lan bu fekkee ni da nga nek ne yow da nga jangal élection yi de façon superficielle moy maanaam naa jël Cheikh Ba naa jël Seydou Gueye naa jël Bamba Fall dajale leen bu ma leen dajalee naa am vingt mille fois loolu mooy jàngat bu superficiel ah. et simplice. vous voyez ce que je veux dire loolu noonu mu jàngatee ba dem def ko Grand Dakar avec Jean Baptiste def ko ak Djibril War def ko ñooñu ñëpp a ah, amené une frustration au niveau de Dakar parce que les gens n'aiment pas la transhumance c'est ça la réalité de la chose. xam nga bu ñuy jàng yëpp dañ koy jàng te jàngal na mooy deuxième chose troisième chose bi nag c'est ses intérêts personnels boo déggee dafa ne Cheikh Ba yàgg na maa defal li ma daan defal Bamba defal ma ko Seydou Gueye def ko pourquoi mu si leen se Gueye ak ak ak Bamba Fall nuance bi foofu la nekk yéen lay journaliste ko man du ma ko jàng. dañ koy yónni. Ah, bi foofu la nekk. là je voulais en venir. bi foofu la nekk parce que ci waxam. dama ne li ma Cheikh ba defal Bamba defalu ma ko Seydou Gueye defalu ko xeex muy parti boo xam ne Cheikh ba defalu ma a ah, moo may defal li ma doon defal Bamba defal ma ko Seydou Gueye defal ma ko am na nuance bu nekk foofu mais quel est l'intérêt xamuñu nag intérêt bi nag moo tax tey coalition benn bokk yaakaar bi bind benn lettre ouverte yónnee ko le président Macky Sall ne ko kaay tak atti ñoon par par bopp am di loolu lañ bu leer renvoi bu leer naaj. na ci journaliste ndax woote na bi élection yi jeexee dajale coalition bi yëpp ci saal bi woo leen waxtaan ngir ñu saytu li nga xam ne moo indi reculade bi ñu am ñu jàngat ko de façon sérieuse ba ñu ko defee xalaat nañ indi ay orientation yoo xam ne dafa laaj ay jàngat yu gën a xóot loolu may wax ñii ñëpp fekkee nañu ci loolu. donc japp naa ne moom indi na ci tontu bu mat sëkk ndax ci njëlbéenu wax wax nañ ko président li mu souhaité woon mooy buñ la machine électorale bi bennoo am c'est une organisation qui a 10 sous-coalitions am plus de 200 organisations partis am ay mouvement am ay personnalités indépendantes ñu élargir ko à une majorité électorale foofu bu fa solidarité amul dara du fa baax foofu bu fa unité amul dara du fa baax moo tax président sukkandiku ci loolu njëkk te Médina matérialisé nañ ko ndax Cheikh il s'est fait violence pour que unité bobu am Moy lepp luñ ko tegoon ci campagne bi nako na ngir unité bi am Té ñun Benno xam nañ ko ko moo tax luñ ko ci dara ndax xam nañ né il a fait violence sur soi-même pour que unité bi mëna am waaye lool ñu ngi koy jàngat ñu ngi jàngat bu baax baax ndax dafa am ay données yu bari bari yo xamné dafa inclure ci biir question bi Té kenn ku ci nek xarañ nga ci am nga ci ay données ñu ne bu bu bu ca kanamee danañ ko gën a jàngataat loolu mooy li nga xam ne moom lañ ci toll du ñàkk ñeneen am ci yeneen xalaat ñu mun ko liggéey aussi